QWSM kénkaari waa kër sëñ talaa ñëw na nekk fii ci diwaanu Mboro si station Escale andil na leen beneen kénkaari bu bees nekk fii ci diwaanu siti sëñ Mansour dendeex see Aïda lépp lu jëm ci wàllu ciment wàllu fer béton peinture port brique carreau tuyau lampe sable ardoise Et produit inco Yep yo soxla demal ci QWSM Kenkayri wa ke Serigne Mourtala yemul fofu yéen ñii di professionnel yi indil na gamme de produits yi ngeen di soxla yep jëm ci série lampe douille matériel de sécurité Kenkayri général outil pompe à eau outil pneumatique outil électroportatif outil de mesure outil de jardin outil d'établi outil à main machine à souder générateur équipement de construction accessoires électroportatifs ak les luy yëngu yëngu ci wàllu construction wala corps de métier yi électricité bâtiment soudeur plomberie maanaam corps de métier yi professionnel yëpp di yëngu boo demee ci QWSM kenkaayiri waa kër Serigne Mourtala di nga ko fa fekk Vous la tamit ñu livreel la yomb na defal commande 33 955 41 45 33 955 41 45 wala 77 448 95 60 76 508 03 54 70 885 38 45 77 448 95 60 wala 76 508 03 54 70 885 38 45 masala n'est fii ci Mboro nekkinu askan bi la kon mbokk bul jaaxle dawal gaaw seetile dinañ la teeru tatagal la toppatoo la macha allah waa kër Serigne Mourtala jërë ngeen jëf.